yassara li muyassirul asiri maxtaaroo li ya bila masiri yassara li muyassirul asiri maxtaaroo li ya bila masiri walla lainu li siwaaya mudbira bima ala zahri yaduumu dabbara maxaa tawajjuha almakaarihi liya baaqin xabaa bi dikrihi wa huwa liya anu raditu wa huwa anni radi bila makariha wala amradi radda li gayri jihati shaytana man tayaba almamara wal awtana farra li gayri jihati lainu yasuquhu li gayrina almuinu hadiyati min alilahi wannabi kulliyati safat wa safatun bi توفيق هاد قاده الإلهام قد الديالي ما له بهام بدت لي اليوم برب الغيب أعاذني ممن خلا وخيب لا يتوجه لنحوي متعب عني محت مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير maxtaaruhu liya bila masiri amin ya rabbal alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balu xaq di leen balu xaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal di jiital ci ñaan yooyu ñaanal saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk aw fanam ak wéram gën koo kattanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fa kaw njort yëpp te ànd ko moom ci barkeb sëriñ bi ni ngeen ko gisee euh, jii talaata ci ngoon gannaaw timis ñu ngi nii ci kër Serigne Touba gi dend ak kilifa yii ñu dendal ñuy ndawi Cheikh Mouhamadul Mountakha muy soññee rek ci liggéey boobu nga xam ne eh, santaane na ko donc yëpp fas ko yéenee jëfe eh, mu mel ne li nga ci xam ne moo jëm ci alquran ji mu am kaddu yoo xam ne da ko jox sëriñ Cheikh mu Serigne Abdou Latif mi jëwriñam te doon ko jottalil mu bëgg koo gën a yaatal ci liggéey bi ak doxiin wi kon bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi nuyu bokki taalibe yëpp ci turu Cheikh Mahamadul Muntaxa di jiital ci nuyoo bi nag sëñ Mahamadul Xabaan di nuyu itam kilifa yi ma toogal jataay bi yëpp mu mel ne waxtu yu biig jotoo jotale woon nañ ndigalul sëñ bi ak ci waajal bis bi mu bëgg def bis bi ci suñ xam ni ko muy aju tem tudde ko ajumay Tuuba ajuma yi mu làmb ci yu bari ci ay pas-pas ci ay yéene ci ay ñaan loolu itam bi nga xamee ne dañuy ni ma ko waxee woon démb dañu yebaloon man sëñ Moussa Sayeen sëñ Youssou Diop ca weetu siafa si Abdou Khadir ñu tënkal ko ndigal li mu joxe bi ñu ko tënkee ba noppi jottale ko ñëpp dégg ko loolu defoon nañ ko ba noppi sëñ Modou Xabaan itam moom siñ Fàllu moom la sëñ bi dénk wàllu alxuraan ji ci nas wi bi mu jotee moom itam mu ne nañ ko soññeel kàddoom nañ soññewaat ñi taxaw alxuraan ji ñi taxaw alxuraan ji moo ko waxee ñii ma seq doon nañ ci dëkk mi sëñ Xaali Jaxate mii nekk ci njiiti daa bi dafa sëñ Moustapha Mbakke mii ak sëñ Abdou Fatah mii di doomam ci kilifa yi nga xam ne ñu yor liggéey bu alxuraan yi ci ñi ko lañ bokk ñu tase ñi nga xam ne kuréel yi sëñ bi taxawal la bis bi muy Muxaddamatul Xidma ak Xisbu Tarqiya ak waa kër sëñ Amsatu ak Baay Faal mu Xidma bu ñu ko waxee buñ naka jekk ñàng mi bu ñu koy def ci jumaa ji lañ koy defee te jumaa ak li ko wër ak li ko jegee lépp ñoom la sëñ bi dénk ñu ne ko taxaw di ko nas lu ñu def ñoo koy taxaw kon mbir mi ci ñoom la ñu njëkkee sëñ Modou Xaban wax ne sëñ bi daa wax ne nañ jàng alxuraan jàng alxuraan bu ko waxe kon yim làmboo mooy pas-pas yu sel ak laabu laabu biir ak biti te jàng alxuraan njàng mu sell te yéene yi ci yi ñu war a yéene yi war a yéene nag sëñ mu sëñ dem waxoon nañ ko daan ko waxaat sëñ Muntaxa daa wax ne nañu njëkk a yéene jàmm ci réew mi yéene itam nawetu jàmm bu ànd ak barke te am ànd ak ndox mu barkeel ñu yéene itam màggal gi ñu dugg ci bisu Armaande moom am jàmm liggéey ko liggéey bu sell te borom màggal gi nangol na ko yooyu la waxoon ne nañ ko yéene ci bis bi ak ñàng mi yooyu nag moom la sëñ Muntaxa waxaat ne nañ ko yéene ci ñàng alxuraan mi ngi bëgg a def bu ko defee nañ ko daan defee nag moom moom rek lañ ko defee waat li ci amuk soppi ko nag moo di woote bi jàmp na sëñ bëgg na mu tegaloo kon jóge gu fi sori di ñëw la yaakaar ne du fi xaj kon daara ju sori ju nekk dafañ nekk nañ fa jàng fa buñ nappee sëñ daara ji lu am ci teraanga ju mën a teral waa ja mu teral leen ci ay xéewal daara yi nga xam ne jege nañ jumaa ji nag ñu ñëw ci jumaa ji jàngee si fa bu ñëwee dañ fek ay ñu leen sëñ Xaali Jaxate mi fii mi ngi nii toog sëñ Abdou fataay mi ngi nii toog bu defee danañ am ay jëwriñ yu leen taxawale wax leen nasal leen ko fa ñuy toog nañ fay toog ak kañ waxtu ñu tàmbali ak waxtu ñu tàmbali waaw sax bu ko Xaali ba wax dana ko waxaat mu leer ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim ñaan ak ci alhamdulillahi rabbil ñaan itam sëñ Muntaxa gannaaw bu noonu fasalee ak yàgg fi wér ba noppi moom la muy fasal taalibe yi itam ñu ngi ñaan sama bopp nangu ci barke sëñ yi ñu sëñ sëñ xabaan yónni genn mu ci war doolewaat mu daal di woote ñoo jërëjëf sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou euh, kàddu yi mat na sëkk alhamdulilah rabil aalamiina kon noonu nga xam ne noonu la ko sëriñ Cheikh waxee ci ndigal la sëriñ Mouhamadul Xabaan ñu Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey bi ci loxoom. te ndigal ñor ko lool ba tax waxtu nekk muy bëgg alxuraan ji dara bañ cee des gannaaw loolu nag nee na ñu soñ ci sëriñ daara yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, jàpp ne seen bisa kenn waru leen cee jëkk kenn waru leen cee mujj waaye defin wi nag mu ne amoon na ci xalaat gannaaw bu mu xa euh, diisoog mbooloo mi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi mooy bis boobu penc mi dana xat mbooloo mi dinañ bari te jëmmi biir jumaa ji dañ koy négal jëm ca waxtu julli wa kon njàng mi ci yokk wi lay doon te sëriñ si ak soxna yi ñëpp ci lañuy nekk moo tax mu gën a sàkku ci mu kàllaf yi daara ju nekk borom daara ji ak la ca di ay mu kàllaf ñoom rek ñu ànd ŋàbb seenub téere ñëw suñ dikkee ni ko sëriñ Basiiru waxee ñu fekk ci penc mi ak mbokk yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci nos bi ñu dugg ci biir yokk yi kon loolu ñu ngi ciy bàyyiloo xel sëriñ daara yi nga xam ne bu dee lu mel ne tu tànk yi ginnaaw yëf yi ubbiku na ca eh, barab yi nga xam ne mi ngi ci koñ yi ci kenn ku ne sa jumaa sa jàkka sa biir daara ñoom ñu dundale ko foofa waaye jëmmi kilifa daara ja nag ak ña nga xam ne ñoo cay ay mu mukallaf nga xam ne mën nañoo ñëw yendu ci barab yendu ci jumaa ji julli war leen ñu jullee ko fi su ko defee ñoom ñoom la woote bi gën a ñeel ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax nag eh, kenn bañ a wax ne rek penc ma bu bu la jegee jumaa ja demee mu doy dangay fekk fexe ba lay ñëw ci jumaa ja yow nga ànd ca kon loolu ñu ngi ciy woo sëriñ daara yëpp di leen ci soññi suñu xëyee incha allah waxtu woowu wax juróom-ñetti waxtu ñu tàmbali njàngum alquran mi euh, tàmbalee ko ci yokku féetee kër sëñ Fallu mu wër ba ci bunt bi jëm soowu ci góor ñi su ko defee soxna yi tàmbalee foofu ba bañuy dikkaat ci bunt bi ci yokk wi ak baas yi nekk ci gannaawam foofu soxna maam xarit daan nekke euh, jëm ca bunt bi jëm ci sëñ daam atta la jamaat ci penku tàmbalee ci buntu ba ba jëm ca Serigne Saalih foofu yëpp euh, mbooloo mi nekk fa di jàng doon ay mu kallaf euh, fonk liggéey bi jox ko gëddaam. mboolem soxna yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci waar wi Serigne Mouhamadul Xabbaan wax ne mi ngi leen ciy soññi ñoom it ñu ñu soññi ca mbooloo yee ñu ànd ak ñoom su ko defee ñu bàyyi xel ci barab yi ndax bisub ajjuma ji ginnaaw buñ demee ba bëccëg mbooloo mi dañuy ñëw dañuy bëgg kenn ku ne fa nga nekk mu doon foo xam ne bu la fa julli fekkee nga mën koo wéel. kon loolu yëpp bëgg nañu sàmmonteek moom te bàyyi ko xel te jëmee ci fulla ak pas-pas te pas-pas yooyu sëriñ bi wax kenn bañ koo fàtte ñëpp fànn woo ko bu baax muy ñaan jàmm ci réew mi bu baax a baax eh, ñaan ci nawet bi ñaan ci màggal gi waaye donga it nag di sakku pas-pas ba dara bañ caa jiitu ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi ndax mooy jàmmi réew mi mooy nawet bi mooy màggal gi mooy lépp yal nañu ko suñu borom defalee noonu ci barkeb Serigne Touba salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla gën ko yàggal te gën ko wéral ba li nga xam ne da ko yéene liggéey sëriñ Tuubaa lépp mu eh, def ko nu mu ko bëggee lépp ànd ak man ak tal di nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe bi yëpp tey am mbégte ci jataay bu tedd bii nga xamee ne ndigal la lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha jëm ci bokki taalibe yëpp rawatina bokki yi nga xam ne ñu yëngu ci xasida yi te sëriñ Xamsatu nekk ci seen kilifa kon ñu ngi soññ ñëpp ci turu sëriñ Xamsatu ak ci kàddoom mboolem koo xam ne danga yëngu ci xasida yi ak noo ci mën a yëngoo te ne ci biir dëkk bi moo xam da nga tënku ci ak kuréel walla kuréel ga nekk kuréel gu yëkkati wala njàngum durus wala kuy jàng njàngum benn benn wala koo xam ne day bind xasida yi ak mépp mbooloo moo xam ne dafay jox xasida yi rek sëriñ Hamsatu nee na mi ngi lay woo ci ndigalul Cheikh Modou Mountakha di ndigal li nga xamee ne da koo joxe muy ajjuma ji di ñëw ci ñu xëy ne ci xasida yi ak alquran ji yendoo ko ba julli jot ñu dem julli ji nekkaat ci ba takkusaan ñu doo a yewee Euh, sëriñ bi di soññee ni ko Cheikh Amadou Mountakha joxe ndigal mooy bernde yi wàllu xéewal yi képp kuy ñëw noo ci mën a jàppee ak fànn gu mën doon nga def ko muy ay xéewal yoo xam ni da koy jox mbooloo mi nga xam ne ñoo daje di jëfe ndigalu sëriñ bi te na ma ko daa waxee rek képp kuy jëf lu baax ka tax mu mën koo def moom moom ñoo bokk tuyaaba ja ki mën a jàng di jàng ki mën a bernde di bernde ñoo bokk jenn tuyaaba kon ñu ngi soññee ci njàngum xasida yi ak eh, bernde yi tey ñaan ñu dajee ceeg ngërëmul sëñ Tuubaa moom mi nga xamee ne moom rek a tax Cheikh Ahmadou taxa woote liggéey bu tedd bii ak bëgg jariñ mi def yëpp ndax eh, xam na ne diggante eh, jàngal Quraan ak zikrullah ak xasida yi te lépp boo ko boolee muy lenn moom rek moomaa tax jariñ ci sunu borom kon delloowaat nit ñi ci seen borom ak ñu fàttaliku sunu borom ñaan ko ci xéwal ñu tedd yu màgg yu rëy yi rawatina la ci gën a jege mooy nawet bii ak lépp lu ci aju yàlla sottal ko loolu rek moo tax Sëriñ Ahmadou Mountakha joxe ndigal lii ndigal nag bu jógee ci kilifa gu mat la mu doon jëm ci ab surgaam wala taalibeem kon loola buntu ndimbal ak buntu tawfeex ubbi ko na kon taalibe bi ak surga bi li ko waral mooy def kem kàttan ba jëfe ko na ko sëñ ba diglee ndax sëriñ bi moom joxe ndigal rek mooy war defam ab taalibe nag jëfe ndigal rek mooy war kon nag nañu ko fasoo te def ci sunu kem kattan te jàpp ne jëfe ndigal lii sunu aajo ci lay fajoo tey ëllëg képp ku bëgg a jëriñu sëriñ Tuubaa noonu rek ngay doxe mooy ndigal lu jug nga jàpp ne sa ajo ci ci lay fajo ni ko Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag bu waxe bi ñuy def liggéeyu raay bii booba ay atam bari na waaye dafa ànd ak sëñ Modou Mbenda mu dawalal ko ba ci wetu Ndula mu wàcc laaj peel bi tibbu ci ay tibb eh, eh, eh, sànni ngir xamle ne ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa mu di ko fekk kat te jëfu ca loole dara jël ko ba tey it ni nga xamee ne noonu la ko defoon Cheikh Modou Moustapha Fall rek ba se sëñ bi santee mbaar Cheikh Modou Moustapha Fall Cheikh Ibra gaaw di njëkkante yóbbu fay jumtuwaay sëñ bi laaj ñu mu doon ñu ne ko waa kër Cheikh Ibra day ñëw fi indi ay jumtuwaay mu ne delloo leen jumtuwaay yi waxuma ko Modou Moustapha laa ko sant Cheikh bi ba ba mu ko yëgee dana waaye Moustapha ku xamoon ne boo amee doom mu dox sa digg sa sa digg ak jëfin maanaam liggéeyal Sëñ Tuubaa jar na bañ ko am kon liggéeyal Sëñ Tuubaa nañu xam fi nga xam ne fi la mën a yeggale nit ki ci diggam ak boromam. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu santee yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Xadim ñoo ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér te mottali ay yéenam yëpp lépp lu mu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu àggale ko te nu ànd kook moom ginnaaw lool ñoo ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma di leen jottali ndigal li nga xam ne moo bàyyeekoo ci sunu yaakaar tey ak ëllëg muy Cheikh Mouhamadul taxa mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim te nattablewuñ ne ndigalu Serigne Touba la ci dundal bis yi nga xam ne santaane na ko te muy bisub ajjuma mu doon loo xam ne nag yàgg nañoo joxe ndigal li li nga xam ne moo ci bees rek mooy bis bi mu dajeel bis bi mu dajeel bokkul ak bis yi daan dajeel dafa daje ak ajjuma tax na nag am na ay soppat yoo yu néew yu ci am sopat yu néew yu ci am mooy ñu bàyyi xel ne bés bi bisu ajjuma la ajjuma dafa am lu ci baaxoo am te mooy jullik ajjuma te jullik ajjuma yi nekk lu màgg ci lislaam loo xam ne euh, euh, bokk na ci li waral Sëriñ Tuubaa doon ñaan wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim assalawaatil xamsa daban yaa xakim kon yaakaar naa ne dara te adduna jaxasoo won na fi ba àgg ci jaxasoo foo xam ne yaakaar naa ne Tuubaa bokkoon na ci fi gën a néew ci foo desee taxawal waxtu yu rawatina waxtu ajjuma kon nag sëriñ bi loonee mu ca taxaw woon ci jamono yee xat-xat yi amee woon rawatina jamono yi nga xam ne euh, alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant yàlla bu baax a a baax kon nag nañ bàyyi xel barab bi ak xataay bi ak waxtu wi ak jaxasoo bi nañ ko daan waxee su mu ñu danañu tàmbali ñaar yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne nañ ci tàmbalee te mooy alquranul karim ji ak zikrullahi bi zikrullahi bi ñu ngi koy defee ci penku jumaa ji ci jullikaayu ayit bi foofu it ñuy sàkku ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo daan ñëw tey kilifa yu mag yi dëkk ci dëkk bi di ñoo xam ne itam dañ leen di sàkku ci ñoom di leen jéggulu ci ñu bàyyi xel barab boobu ndax waxtu woowu dana dajeeg ñi nga xam ne ñooy sikar ak kilifa yi Baay Faal yi nga xam ne ñoo fay nekk ñu dimbali ñu ngir yàlla ci gaare gi donte naaj bi tàng na metti na ay kilifa la ay mag la ngi ci ñoo xam ne xëy na dox bi sori bi dana jafe waaye ku ci mën a gaare sa lu juuti nga egg foofu rek mu dimbalee ñu def loolu ngir mu gën a jàppandal liggéey bi. Euh, bu ñu jàngee euh, al euh, ak alquran ji ba gën jaa naaj benn waxtu it lépp danañ ko teg waajal jullik ajjuma gi. boo boobaa it ñuy sàkku ci ñëpp ñu ànd ak dal ànd ak tekk ànd ak déglu ndax foofu yi fi nekk ah, yu am solo la te lu mat a bàyyi xel la la ca jiitu mooy bayaan bi nga xam ne moom la jiitu waxtu julli la ca topp mooy nodd yi muy àndal la ca topp mooy xutba bi nga xam ne moom la ñuy def jiitu ajuma ak julli gi ci boppam yooyu yëpp lu ci nekk dafa laaj ak déglu laaj ak dal ñuy ñaan sunu bokk yëpp koo takku rajo moo xam ngay jàng moo xam ngay jàng alxuraan moo xam ngay zikar ak loo mën a def nga xam ne boo waxtu jotee li sëriñ bi digle mooy lépp nañ ko teg ba ñu julli ba noppi bu ñu ba noppi ñu delluwaat ci ndigal li ni ko sëriñ bi waxe woon ba waxtu yewee jot ñu yewee mboolem ñi nga xam ne ni euh, ñooy jàng si ni ko sëriñ xaar yi waxe woon léegi ci yokk bi la ñuy nekk mu yokk bi nga xam ne moo tàmbalee ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Fadil ba ci buntu kër Sëriñ Blaat jàdd ba egsi ci kër Sëriñ Tuubaa gi ba ci bunt bi jógee euh, ci tali alaaj njóge keebe bi foofu lay yem ci wet googu la tàmbalee foofu ba buntu kër Sëriñ Daam Atta loolu jigéen ñi ñoo koy ñoo koy jagoo la tàmbalee buntu kër Sëriñ Daam Atta wutiwaat kër Sëriñ Saaliw foofu góor ñi ñoo fay nekkaat Euh, waaye bu ñu ñu leen di ñaan ñooñu nga xam ne ñoo toog foofu di jàng su julli jotee it ñu continuer toog foofa jullee fa ndax buñ jullee ba noppi xéewal yi nga xam ne moom lañ lu fa jot a ñëw ci ay xéewal foofa lañ leen di fekk séddale leen ko waaye benn bool bu xéewal du dugg ci biir jumaa ji mag ji nañ ko daan defee yaakaar naa ñi fi tàmm ñëw xam nañu loolu kon nag nañu bàyyi xel loolu ñuy sàkku itam ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yépp ñu jàpp ci liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ bi santaane jàpp gi nag day jëm ci ñaar mooy li ci jiitu mooy ndox ndax dañoo toll ci jamono tàngoor tàngoor bi metti lool ñi fay nekk di jàng ñii di yëkkati ñii di durus kenn ku nekk ci ñooñu day soxla di naan kon nag fu ay mën a toppatoo ndox ak nu mu mën a toll na ko andi te teel koo andi di ñëwee ci jumaa ji dana fa fekk ñi nga xam ne ñooy dajale ndox mi ngir jox ko ñi nga xam ne ñoo ko mën a jariñoo wàllu xéewal ni ko sëriñ bi waxee Euh, kenn ku nekk euh, na nga jéem a fàggu dara ci sa kër donte ab bool la nga jéem koo andil ñi nga xam ne itam ñooy woyal ndigal li ci barab bi boo ko andee am na ay waañ yoo xam ne danañ ko fàggu ci jumaa ji ak ci li wër jumaa ji ngir yenn waxtu yi nga xam ne dañuy ñëw ci waxtu julli wala yu mel nga xam ne xëy na duñ mën a dugg ci biir jumaa ji bu dee jigéen wala yu mel noonu du ñàkk ay barab ci kër yi wër jumaa ji yoo xam ne danañ ko faggu ngir ay waañ ku andi ñu mën ko faa yóbbu waaye ñuy sàkku nag ñu yokk war may ji ci jumaa ji ndax ab taalibe fu mu mën a bàyyi ko bu agsee ci Serigne Touba war naa yokk ak dalam war naa yokk ak taalibeem war naa yokk pas-pasam waaye war naa yar ay cëram itam nag kenn ku nekk nag pas-pasam ba ko andi ak doxin wa muy doxee ca lay mën a jariñoo leneen lu ko cay fekkit ca loolu la koy mën a fekk ñu yéene la jariñ nag ba faggul la ko ci faggu woo xam ne mën nga caa am lu kawe sa njort nga ñàkk fayda wala nga doyadi ba yàqal ko sa bopp dara ci àdduna jaru ko te euh, lii jariñ nit tey ak ëllëg mooy ay teggin teggin rek mooy jëriñal nit tey ak ëllëg ak taalibe weesuwul ay teggin rek boo ko defee loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon a jottali ci ndigalul sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. naqulu ba'dal ibtidaa bil basmala walhamdi wasalaati summal xawqala gannaaw ba ñu nuyoo. suñu kilifa gu tëdd gi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal fan gudd wànd ku góor waaye itam di ñaanal jëwriñam jee sëriñ am li moo du mbend mi bi mu am ci liggéeyu maamam bii lépp sotti te sotti ci ay loxoom te ñu ànd koog moom di fàttali rek li nga xam ne ñun ñëpp ko yëgandoo muy ndigalu bawoo ci sëriñ bi wàcc ci biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nag sàkk woon tey jii. lenn ci njabootam teewal ko fi ngir yaatal ndigal yooyu waaye wasaare ko ci njabootu boppam gi te mooy ñi bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ngir bu bis ba taxawaay bi leen ca war ñu taxawee ko ba mu mat sëkk loolu sëriñ bi nee na mi ngi soññu bokki boppam yi nga xam ne moom la bokkal maam Cheikh Ibrahima ak fu ci waay man di féete ci bunti kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall yi waaye di soññu kër maam Saliou Fall. di sàkku waxtu wi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ñu yegsi te tàmbali liggéey bi nu def lu man ci fekke ko te ñëw ci waxtu woowa waaye sàmmonteeg ndigal yi nag ba waxtu wi mu sàkkoo tam mu daytal mu ñu yem ca ñu yem ca ndax ndigal dañuy wax ne caabi la su ëppee du ubbi su yeesee du ubbi te bakku murit wala bakku bayfaal ba ci gën a siiw mooy jëfe ndigal bàyyi ay tere loolu sëriñ baa ngi koy fàttali ñëpp di sàkku itam turu yàlla woowu yam war a lënkoon yëpp ci luy tax mu set wecc te sell ni ko sëriñ bi waxee ñu sàmmanteeg moom ndax ku ne xam na ne euh, loolu moom sëñ benn ko dimbalee te mooy barab boo xam ne dañ koy fekk mu set wecc jëmm yu koy Eh, taxawu tam mel nañ war a mel ndax ginnaaw wax nañu ne malaayka yi danañ ko di fekkee te di fa soxla woo xet gu neex yooyu yëpp ca la bokk te yi bara i xati isla taxloo majalisu zikri isa ma najjaloo anil malaayikati bistimaay wa moo mel ni jinne ala timaay loolu dafay mel ne dana ca baax kon ñii ñëw waajal seen bopp ba méngale loola ak barab ba nga xam ne fa lañ jëm si waaye daa mel ne day ñaari cër yu booloo ginnaaw bi nu sàkku tudd yàlla gi ba noppi sëriñ bi daa bëggoon itam lu jëm ci yéwénal wala li bijjanti nit ñi loole it mu ajoon ko ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi waaye tey itam euh, ñu ànd ko mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la tudd sànq te ñoom ñu ci ne am ci ab cër bu leen sëriñ bi sëdd nu bëgg tamit nu wéyal liggéey bi ànd ko ñoom ca na mu waree loolee nag day laaj ab nos ngir pëccëxoo du am ndax barab ba mooy laaj lu mel ne loola su ko defee itam ñu xam ne liggéey la boo xam ne. ñëpp la ko sëriñ bi di sant sëriñ bi jóge fii léegi eh, te doon yëkkati kàddu waa Muxaddamatul Xidma yaatal na ci lu yaatu mel na ne liggéey la boo xam ne doon na laaj ñi amul tawféex yi ñëw fekk jataay ba waaye mën na noo am tam jëf ju ca mën a egg si loolee nañ ci def yitte jumat sax sëriñ baa ngi koy soññee sëriñ bi nag ab soññeem sax ci njabootu boppam gi la tàmbalee ndax daa bëgg moom ginnaaw jàpp na ne ndigalu sëñ Muntaxa li saa boo tegee ci war a yéwénal lépp. moom togg yooyee ma ngi koy soññee soññee bu yaatu eh, naan gi sëriñ bi di wax léegi ma ngi koy soññee soññee bu yaatu ba fas yéene na incha allahu rabbi képp koo xam ne ci moom nga loo ca daan def nga dolli ko waaye bu ci wàññi dara. la cëpp solo nag mooy ñu fàttali ne pàkk bi ñu bëgg a defee barab boobu mooy pàkk bi gën a yëkkatiku ci tubaa ci noonu murid yëpp ndax fa la ku tedd gi tëdd kon digal yi sëriñ bi jàll barki démb rek te mooy sàmmal ko ormay fu ne lañ ko war a sàmmee waa rawatina foofu kon doon na baax nu bàyyi ko xel ñiy ñëw te di ay ganit nu xam ne liggéey boobu bis boobu lay gën a fës ci lay gën a ci lay gën a ci lay gën a yaatu ñu bàyyi xel tam ne mbooloo yi nga xam ne tam ñooy ñëw ñooy bijjanti nit ñi ci li sëñ bi ñooy sikar sikar si ñooy ñooy séddale ñoom ñooy def lépp ñooy waa war moytu waay itam nan ko bàyyi waale xel ba nga xam ne euh, du ci am am mbetteel te sëñ bi jàllale na ko léegi barab boobu daa laaj wormaal waaye bisuñ ko wormaal yëpp nag baax na waaye bisu ajuma amaat na ci cërub boppam waaye itam pàkk biñ koy defee amaat ci cërub boppam kon nag loolu sëñ baa ngi koy fàttali ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jataay bi rek lay lay seere ne jataay bi war naa del xelu taalibe yëpp ndax ndigalal sëñ bu ji bu xasee jóg ñi ko seq ñëpp daje ngir mu nosu xam ne sëriñ bi. moom bu dongo yëpp dajalee boole seen xol muy benn sëñ bi daf koy jël def ko muy xolam yéwé na lépp loolu kon ñun ñu ngi ciy sant bu wér ndax euh, liggéey bi ci jumaa ji lañ koy defee ak li ko wër kon Muxaddamatul Xidma seen teewaay nun sant nañ ci euh, euh, sëñ Cheikh wax na ko boo seetloo tamit sëñ Amsatu ba at ma jëkk mi mi mi ñu sëñ bi santee ñu taxawu njàngum xasida bi dafa ne sëñ am sa bu demee ngeen xamalal ma ko ne ko lu waay di def ci xasida yi moom la koy dimbalee loolu it muy cër boo xam ne da cee ne ba suñ borom metteel ko ci noonu muy cër bu ko sëñ Tuubaa jox donc yëpp nangul ko kon tamit moom nii mu uh, war a taxawee ba njabootam ñëw teew ci buñ ko àndee day gën a rafet euh, nii nga gisee tamit euh, sunu bokki faal yi euh, ñu waxe ko nu war koo ànd ak ñoom dafa dafa doon lu dal xel Euh, yamul foofu boo xoolee tey jii ñi yor sonorisation ab daayira lañu ñi yor baas yi ab daayira lañu waaye ñëpp ñëw nañu teew ngir wane ne lan fan moo nar a sooxe ngir ñu ànd ci kon ñëpp boole nañ seen bopp ba lépp rek mu rafet lañ ci jublu boo jëlee sëñ xabbaan kàddu yi dégg ngeen ko sëñ xaal yi wax ci turu sëñ xabbaan ak sëñ Abdou Fatah mi toog Euh, loolu defe naa dal na xel li ci des rek mooy man damay damay wax ne am na benn comité boo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw sëñ Cheikh Abdou Latif doon ay jëwriñ yoo xam ne vingt quatre heures sur vingt quatre jekk nañu fii ba ba ñu àgg ci bis bi lépp lu nit bëgg xam euh, waxoon naa ko daaw ca woote bi ne képp ku am dara looy joxe ne dama bëgg mu doon lu ma koy tàbbal ci bis bi jarul nga naan damay dem ci isbu tarxee ndax ñoo ko jiita dee déedéet fii la gën a jege boo ko fa yóbboo yóbbu nga ko isbu tarxee ndax nun ñi euh, boo demee kër si yablaat euh, waxuma la sax si am mi koy dundal foofu waaye waa kër ga wala nga dem kër si Abdoulaye borom dër bi kër ga wala nga dem kër si Abdou kër ga wala nga dem kër sëñ Saaliw kër ga kër yooyu yëpp kaddu sëñ Muntaxa mooy seen kaddu kon nañ ko fay dundalee boo jëloon sa ñax sax def ko fa ñoom dinañ ko booleeg la ñu yor ngir ku fa ñëw dañuy jàpp ne ñoo la war a teral ci turu sëñ Muntaxa kon yëf yaa ngi noonu euh, nañ ci nañ ci jàpp kenn ku ci ne xam ne al aqrabu awlaa ki la gën a jege daal moo gën a yey ñu ànd defar incha allah ndimbal dinañ ci fekk ndax saaba yi ba ñuy xaree euh, amadou rabbul anaam lu jiitu ñu koy am te naa samal moo tax maa moo jiitu dañ caa dem ba jeex takk bañ bañ ca demee nag ba nga xam ne euh, xare bi tàng na ci la ndimbal ñëw ama doo rabbu la naam bi jundi am laakin nizaam ñetti junni malaayka yoo xam ne kenn ku ci ne mën a tukkal àdduna boo ñëwee xam nga ne xajuñu cib xare te lu mel noonu nag ñu ñooñu mosuñu fee jóg ñoo ngi fi ànd ak Serigne Touba fu dong yi di yëkkati mu nar a diis rek dañuy ñëw jañ ko mu dem ci kaw kon ndimbal loolu yàlla nañu ci fekk ci barkeb Cheikh Mamadou Mountakha ndax wóor na ma ne moom la ñuy ki fi toogal Serigne Touba dong la ñuy déglu jërë ngeen jëf